sheytaan rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi mbokk taalibe comme niñ koy faral di amale ci waxtu yu mel nii fii ci daaray kaamil dundal koor tey ñu ñëw ci fukki fan ak ñaar ci weeru koor tombeeg le 23 mars 2024 ñu ñëw ci thème bu am solo bi la gestion de la mosquée et ses ñu war cee ànd ak docteur Khadim Silla mi nga xam ne jotaay bi min ko lool wax dëgg yàlla am ci ay taxawaayam yu xam ne da koy jëmale ci wàllu xam-xam kim ko war a fegal mu war koo modérer jotaay bi nekk Serigne Moutala Mbacke moom Serigne Ndiogu Mbacke moom it wax dëgg yàlla muy koo xam ne kii day jàpp ci liggéey bi ñuy fi fii ci daara ji. kon bu ko defee rek waxtaan bi ngeen koy bàyyi xel ci réseaux sociaux yi wala ci télévision yi ak ci rajo locale yi nekk diggante Touba ak Mbacke bu dee ci chaîne YouTube yi mën nañ koy topp ci Daaray Kamil TV Touba Vision Rava TV Isbu Rahman TV. Touba production académie Minan As-Samadiyya TV Siwal TV Bichri TV Rewmi TV Saxum Touba Bawal TV Xamle TV kon télé yi tamit ñu ngi koy jàllale mu mel ni Touba TV ñu ngi koy teg Almouridiya TV ak Rewmi TV ba tey ci loolu rek rajo locale yi nga xam ñoo nekk diggante Touba ak Mbacké ñoom ñu ngi koy jàllale en même temps di ko rediffuser waxtaan yi waxtaan am solo gum am solo mu mel ni rajo Assalaamy FM mi ngi koy teg RTS Touba Mbacké FM RFM Mbacke Walfajri Ceeñeer FM Touba Mbacke FM ak ICAP FM tey nag dañ fee am euh, ay mbokk taalibe yoo xam ni nekk centre keppaar Serigne Saliou war a fekkee waxtaan wi ñu leen sant bu baax ci seen teewaay fii ci Daara kon day mel ne ñoom lañ dara jàlle bis bi ñu bokk defee ñu mën a toog taaxirlu waxtaan wi teewul teewul liñ fi wax mu ngi mën koo jëriñoo xam na pour njëkkanteeg waxtu wi rek dañuy jox sëñ Moutala Mbacke moom Serigne Diop mi nga xam moo war a modérer jotaay bi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 ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyoo fii ci maktabatu cheikh al xadim daari kaamil tuuba di ziyaare ñëpp ci weeru tedd wi ñu nekk di ñaan sunu boroom mu may nu ñu àggale ko te taxawe ko ngeen jaa rafete anam tamu nangul ñu ko ci barkeb cheikh di jiital ci nuyo ziyaare yi fadilatu cheikh mohamadunul muntaqa xafidahullah waraa a ko ñaanal suñu boroom dolli ko wér dolli ko gudd fan dolli ci liggéeyu lislaam bi nga xam ne jiite na ko bokk yi maktabatu Cheikhul Khadim daaray kaamil ni ko baaxoo defee ci weeru koor wu ne waaye ci munasabat diine yi yépp di ci amal ay jataay xam-xam di ko seq ak bokki jullit yi ngir ñu nafaraat ay tomb yu am solo ci suñu diine naka noonu mi ngi koy woyal tamit ci kor gi ñu nekk euh, bi mu tàmbale ba léegi ñu ngi taxawal waxtaan yi tey jii incha allahu taala mu andil leen waxtaan wu ama am solo woo xam ne mi ngi jëm onwaan bi mooy thème bi mooy idaaratul masjid wa majaalaatuha idaaratul masjid wa majaalaatuha te mooy euh, administration jàkka jàkka nan lañ koy administrer session bi nan lañ koy defee ak ci yan majaal lay jëm ci yan domaine lay jëm muy thème bu ama am solo boo xam ne ah, boroom xam-xam bu mag bu ñëpp xam fii ci réew mi ci boroom xam-xam lislaam yu ràññeeku ci réew mi waaye rawatina ci yoonu murit muy suñu mbokk ak docteur Khadim Silla mi ngeen xam yen ñëpp ñu ngi koy nuyu nuyu bi gën a màgg di ko siyaar bu baax a baax di ko jaajëfal ci taxawaay bu am solo bi ci wàllu wi ak ci mboolem réew mi yëpp rek rawatina ci yoon wi ci lépp lu koy jëme kanam rawatina la ci aju ci wàllu xam-xam sëñ xaadim mak Cheikh xaadim mi ngi lay nuyu lu bare bari di la dalal baax a baax sëñ xaadim moomu lañ fas yéene moo ñu fas yéene defal waxtaan woowu waxtaan wi nag dana ko indi ci tomb yi dana def muqaddima ab laytaayal bu ñu dugal ci euh, waxtaan wi woo xam ne mooy cëslaayul waxtaan ne ndax nañ ne jàkka nan lañ koy yore nan lañ koy taxawoo ak ci yan wàll lañ war a taxawu ci doxalinu jàkka mu tàmbalee ko ci majaal bi ci jiitu te moy ne jàkka li ko tax a mooy li ëpp solo ci lislaam rek te mooy def ngëm yàlla ci nit ñi mooy woo nit ñi jàngal leen lan mooy gëm yàlla dëgg orienté leen ci yoonu yàlla bu noppee nag am na beneen majaal boo xam ne moom it bokk na ci ku bëgg a taxawal jàkka ba jàkka lim war a def mu def ko moom itam war nañoo koo saytu saytu bu jaar yoon te mooy majaalul ibada jàkka lañ fay def lu bari la waaye jaamu yàlla mel na ne moo ci ëpp doole ginnaaw bu gëm yàlla amee ba noppi jaamu yàlla googu nag bil maxnal xaas maanaam lu jëm ci julli lu jëm ci woor lu jëm ci Euh, jàng alquranul karim ak yëpp yi nga xam ne ay jaamu yàlla yi nga xam ne diggante jaam la ak boroomam ndax ni ngeen ko xamee jaamu yàlla moom dafa bëri ay dimension waaye bu ñuy wax euh, ci majalaatu idaratul masjid ñu indi ci al ibada fii te mooy bi ci jiitu bil mahnal xaas moo tax ñuy wax seen xaadu bu ñëwee dana gën a leeral loolu kon bokk na ci wàllu jàkka liggéeyu jàkka mooy may nit ñi bu ku bëgg a jaamu mu mën koo jaamu ca anam gam gën a yelle anam gam gën a muccee ci ayib ñaareelu majaal bi nga xam ne suñu xaadim dana si ñëw ak ñun incha allahu taala mooy majaalu taalim wala irshad jàkka dafa bokk ci ay rôle yi war a joué dafa war a bokk ci ab liggéeyam mooy di jàngal nit ñi di jàngal nit ñi mboolem xam-xam boo xam ne amal na leen jëriñ waaye du ca yam di leen orienté yitam fi jamono toll taxawaay yi nan la war a demee ci lu dëppoo ak diine lislaam loolu tamit ci liggéeyu jàkka la bokk bu ci noppee dana ñëw ñun ci beneen majaal boo xam ne moom it war nañ ko idaara ci jàkka mooy taxawu ko saytu ko ba mel mu war a mel te mooy almajaalul ijtimaa yi mooy lu jëm ci wàllu social loolu tamit dafa nekk mbirum jàkk mooy fexe ba dëkk bi nit ñi waa quartier bi wàllu social bi jàkka ji am ci taxawaay boo xamante ne ni bu ama am solo lay doon kon ñu gis ne jàkka day mu assasa boo xam ne ab institution la ci lislaam boo xam daanaka moom dañuy wax ne dafa transversal lépp lay laal lépp lay laal ci dundu jullit ñi euh, bu ñu nekkee ay afraad ak bu ñu nekkee ay jamaahaat yépp kon ci euh, ñett ba ñeent majaalaat yooyu la suñ xaadim fas yéene ñëw ak ñun ci nan la ñuy saytoo jàkka ba wàllu yooyu yépp jaar ci nam war a jaare lu ñu dal dañ koy bàyyee euh, kàddu gi incha allahu taala suñ xaadim tafaddal maskura waffaqakum allah waaleykum salaam bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihim ila yawmi ddin ixwata al iman wal irada assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa atala baqaa di nuyu ak a siyaare kilifa yi dëkk bi yépp ci weeru koor wu bi waaye nag di jël nuyoo ak siyaar boobu di ko teg ci jaarale ci sunu kilifa di sunu mag di Cheikh Mouhamadoul Moustapha Diatra mi nga xam ne moom la kilifa yi dénk barab bi di siyaare itam ñi nga xam ne ñëpp ñoo yore liggéey bi fii comme ni ki nga xamee nekk moom la ko Cheikh Mamadou Mourtada ubbee rek loolu mooy waxtaan wi te mooy jàkka jàkka ci boppam nan lañu koy saytoo ba li nga xam ne moo tax a jóg jàkk ci ay taxawaay yoo xam ne da war a am ci biir diine ji ak ci pénc mi muy société bi mu mën koo am xam nañu ne jàkk taxawaayam ak wàccuwaayam ci biir diine islaam dafa nekk ci wàccuwaay yi ci gën a màgg ëpp ci solo ndax gannaaw boo xamee ne ñun ñëpp nangu nan ne sunu borom subhanahu moo bind lépp bind ñëpp bind fépp nangu nañu it ne ñun ñi gëm ne moom fépp moom lépp moom ñëpp waaye nag ci biir fépp ak ñëpp ak léppam jooju moom nag daf ci bari loo xam ne daf koo dénkaane confier ko ay nit ba tax ñuy mën a wax naan kër diw wala dëkku diw loola ndénkaan li la majaas la waaye moomeel gi dëgg-dëgg sunu borom subhanahu la waaye nag mu am ci biir loolu mu moom lépp nag loo xam ne moom dénku ko kenn maanaa dénku ko kenn bëggutit ñu dénku ko kenn bëggutit ñu associe ca biir moomeel gi mu ko moom kenn mbaa lenn loolu nag jàkka daf caa bokk wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada loolu jàkka moom sunu borom subhanahu képp moo ko moom moo tax nag mu wax ne bu ngeen fa duggee bu leen associé ca la ngeen ma fay defal kenn mbaa lenn bu leen fa woo te ngir lu jëm ci kenn mbaa lenn kudul man loolu kon wane na wàccuwaay bi mu am néegub yàlla léegi niñ ko war a dundale itam alquran moo ñëw waxaat ko innama yaamuru masajid allah man amana billahi wal yawmil wa aqama alsalata wa ata zakata wa lam yaxsha ila allah fa asa ulaika an yakun ulaayika min al muhtadin fa'asa ulaayika waaw an yakunu min al waaw kon mu mel ni kon jàkka kon sunu borom leeral na ci aaya bi nen nii lañ koy dundee man amana billahi wal yawmil axir wa aqama salaata wa ata zakata wa lam yaxsa ila allah fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin kon loolu tënk na eh, ni nga xam ne moom lañu war a dundale jàkka kon moo tax eh, comme ni ko seex Cheikh daa waxe ci introduction bi bu ñuy xool kon ci wàllu dundal boobu ak gestion boobu nga xam ne moom lañu war a def jàkka ak li tax a jub jàkka ak taxawaay bi mu war a am ba ci jiitu mooy li jiitu ci diine islam muy fondation fondement wu diine islaam bi nga xam ne moo di gëm muy pas-pas ci boppam muy wéetal sunu borom subhanahu wa ak jox ko li mu moom te ko ak kenn <coughs> muy lu yaatu loo xam ne nag lépp lu aju ci maanaam tawxiid ak aqida daf ci aju e nangu ne yàlla benn buur la boo xam ne moo bind ñépp bind lépp nangu it moom rek lañ war a jaamu waaye gëbit ne buñ koy jaamu waroo associé ci biir jaamu ja kaneen ku dul moom nangu itam ndaw yi bu yónni te ka ca kam nu ca ka ca féete ak nun di sunu tawfiix di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa nga nangu ne ndaw la lu yàlla yónni et bi mu ko jox muy alquranul karim itam ci yàlla la bàyyi ko laneen li mu jàngale léppit di muxtadaa wa anzala ilayka zikra nusi li tubay ni li naa si euh, maa nusila ilayhim loolu lépp itam ñu xam ne loolu lam ci jàngale lépp ci am xam-xam et loolu léppitam nga xam ne wa maa yantiqu anil hawa in huwa ilaa wahyun yuuhaa xam ne kon lépp lu mu wax rek ci yonent bi sall ci borom bi subhaanahu la bàyyi ko lépp lu mu lu andi ci yàlla la bàyyi ko ak la ca aju lépp nag ci luñ war a gëm ci arkaanul imaan as sitta muy gëm yàlla gëm yonente yu yabal gëm téere yi nga xam ne moom la wàcce ci ñoom e gëm itam li nga xam ne tey mooy malaayika yi nga xam ne kenn ku ci nekk e ci nun e surtout bàyyi xel ci ñaar ñi nga xam ne tey moom moom la ñu féetale muy la kaatibiina ya'lamuuna maa taf'aluuna ñu xam ne am na ay malaayika yoo xam ne ci service am lañ nekk waaye ñu bàyyi xel ñaar ñi nga xam ne nag ñoom la euh, affecté ci nun kii nekk suñ loxol ndeyjoor kii nekk suñ loxol càmmoñ te ñuy ñoo xam ne maa yalfizu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid dara du ki nekk ci loxol ndeyjoor lépp loo bind ci ab safaan loo def ci ab safaan wala nga wax ko mu bind ko ki nekk ci loxo càmmoñ bi noonu ñu dencal la ko ci bis ba bis bi nga xam ne bu agsee da nga jàkkaarloo ak sa borom yow képp ba jàpp ne yow rek yow la bind mu yëkkati téere boobu teg ci sa kanam nga war a jàng la nga xam ne moo ca nekk ci loo defan ci àdduna wala loo waxal loolu lépp itam dafa bokk ci li war a gëm ndax gëm gi dafa am jeexit ju def ci li ñuy boo xamee ne yàlla boole na la ak ñoo xam ne dara du leen rëcc ci li ngay def ak li ngay wax te bis da nga jot nga tariwaat ko loolu da koy bàyyi xel bu baax loolu yëpp nag naka noonu gëm dogal sunu borom subhanahu daf ñuy dimbali ci lu lu baree bari muy jëm al imaanu bil xadaai wal xadar bu boobaa lépp lu yàlla dogal ci yow ci lu neex ak lu naqari lépp danga koy gëm nangu ko xam ne ci yàlla la bàyyi ko e kenn mën koo na gàllankoor ba du yegg si e nga nangu loola gëm ko bañ ko jiñ kenn waaye lépp lum dogal ci sa baneen moroom jullit itam nga nangu ko gëm ko e bu ko defee boobaa kañaan du am soxar du am lu nit ki am lu nekk danga koy ko yéene ndax da ngay xam ne def def yàlla la ca moom waaye gëm itam nag bisu penc ba eh, ne dana ñëw kenn ku nekk nag ñu àttali say jëf loolu lépp muy xawaayi du imaan yooyu yëpp dafa nekk ci li nga xam ne maanaa jàkka moo jiitu ci eh, mission jàkka ci woo nit ñi ci gëm googu ak tàggat leen ci gëm googu ba mu sax ci seen dëkk loolu moo waral gis nga booy nodd lu mu doon allahu akbar allahu akbar yàlla moo gën a màgg lépp moo bëgg gën a màgg ñëpp waaye santaane sunu borom subhaanahu it moo gën a mag lépp gën a màgg ñëpp loolu taw daf koy jàngale boo déggee allahu akbar lépp loo jàppat da nga koy bàyyi képp koo nekkalan da nga koy bàyyi lépp loo nekkanit da nga koy bàyyi loolu la lay jàngal Cheikh al Xadim ci tombam ya noonu la daan jàngale allahu akbar fu ko waay déggee ci ak noddu lépp mooy yàlla moo gën a màgg lépp loo nekk lu jiitu woote booba yàlla moo gën a màgg képp koo nekkal lu jiitu woote booba service ub yàlla moo gën a màgg service ub sab service ak service koo mën a nekkal bàyyi la nday la sa seyxul murabbi la sa seyxul muallim la service boo mën a nekk allahu akbar boo ko déggee xamal ne moo gën a mag service booba wuy jël service bàyyi lépp te wuy jël service yàlla loolu lay jàngal ci noddu moo tax gis nga ko ashhadu an laa ilaha illallah ah ashhadu anna muhammad rasulullah hayya ala salaat allahu akbar allahu akbar terme yi ca aju yépp yu lay woo ci tawhid la ci wéetal yàlla ak wéetal li nga xam ne mooy santaaneem bii te bañ koo boole ak kenn ak lenn kon loolu mooy la nga xam ne mooy la ci jiitu e naka noona boo xasee ba ñëw ci wuy si ci woote boobu it ci ba ñëw ci li ci toppit boo ñëwee xam nga ne ci julli gi booy liqaam ak ak ci biir julli gi li nga ciy def lépp mooy gest yi ci ëpp yépp ci looy def ci sew làmmiñ mooy Eh, saxal taw it jooju rek allahu akbar boo sëggee ne allahu akbar boo siggee noonu la ngay wax lépp ci biir julli gi la kon eh, taw it mooy la ci jiitu ci li nga xam ne dañ ko cay jàngale eh, ci wàllu liggéeyu jàkk wéetal ko ci lépp <coughs> ko ci lépp itam jooju dafay indiwaat la neen moo di kon néegub yàlla dafa war a nekk loo xam ne moo war a nekk suñu priorité ci lépp loolu moo tax Seexal Xadim ci boppam e fa tabarakallahu moom ci niñ ko baaxee du yam ci rek enseignement théorique mais dafay matérialiser li muy jàng sëriñ bi bi nuy jàngal loolu ci boppam muy taw it boobu tey dafay yaatu ci wàllu gune du jàggee ni rek ci ci ci dafay yaatu dafay war a feeñ ci jëf yi ni muy feeñe ci wax yi moo tax sëriñ bi ñu wax ne fépp fu mu masaa wàcc la muy jiital mooy tabax fa wutal fa yàlla am néeg mooy fépp fu muy sanc fu nekk bala ñoo defar kër gi muy gi muy dëkk wala néeg bi muy dugg néegub yàlla bi la ñuy jiital ba noppi loolu lépp nag dafay ni muy matérialiser tawhid ci jëf ci ci boppam waaw ndax bu fekkee ne fu wàcc fu ne e yàlla lay jiital néegub yàlla lay jiital kër yàlla lay jiital loola dafay nekk loo xam ne day day jëmbat taw it ci xol ak pas-pasu nit ñi loolu moom la moom la jiitaleen ci lépp fu mu masa dem fenn fu nekk lool lool lool lool lool loolu lay de naka noonu fépp fu mu masaa wàccit fépp fu mu barab bu mu masaa wàcc bu nekk wala bu masaa taxaw faw lam fay def rek mooy joxe fa santaane sunu borom subhanahu moo xam lu ko mën a lu ko tax a jóg ak lu ko mën a tax a jóg yitte ju ko mën a tax a jóg moom bu accès fu mu wàcc fenn fu ne wala fu muy stationné fu nekk dana fa dana fexe ba euh, julli fa ñaari rakkan ñu wëlbatiku euh, def ko jàkka tey màndarga yi ñu koy xamee ci barab yi muy jaar yépp tey fa mu doon jullee rek la ñuy wax muy fi muy wéetale sunu borom subhanahu wa taala ak fi muy joxe euh, sunu borom ak santaane sunu priorité ci lépp lu ko tax a jóg ak fépp fu ko tax a kon loola nekk loo xam ne kon jàkka daf koy war a saxal ci pas-pasu ci dënn ñi nga xam ne tey ñooy roisul eh, al masjid yi muy ñi koy fréquenté ñëpp kon rôle bi nga xam ne moo jiitu ci bis ci war a def moo di eh, saxal ci ñoom taw it jooju ba nga xam ne buñ génnee ji it fépp jëm fu nekk maanaa yàlla ak santaan bi yàlla lay jox priorité ci lépp buñ ca jógee nag ñëw ci majaal bi nga xam ne bu ñuy wax buñ ne jàkk rek ci la xel ñëpp dem muy majaalul ibada bi maanaa bil maanal xaas bu ñu waxee ne al ibada bi maanaal xaas mooy al ibada ab julit lépp lu muy def rek ci biir jaamu yàlla lay dugg al ibada bi maanaal am rajaal ijtimaa yooyu yëpp tey ci fi maf ubil islam ci ibada lay dugg waaye nag buñu ne al ibada bil maanaal xaas kooku maanaam ñi ngi ci jublu e lu demee ni ki adaau mara maana salawat al mafruda wa nawafil fil masjid muy jaamu yàlla gi nga xam ne muy di aju ci di ci jiitu muy julli yu juróom ci niñ koy dundale aay bi wax na ko aay bi wax na ko aay biñ jàng léegi wax na wax na ko gannaaw bu imaan jàllee innama ya'muru masajidallah man amana billah muy imaan bi mooy jiitu wal yawmil axir wa aqama salaat kon bokk na ci ni ñuy dundalee jàkka mu di fi julli julli juróom tabax jàkka mu rafet lool fa tabarakallah lal ko laltaay yu rafet décoration bu rafet ba noppi te duñ fa saxal julli yi juróom kooku du dundal jàkk moo tax e, am na ahadis sax yu ñëw dem bay wax ñu képp koo xam ne dangaa dëkk ak jàkka sa kër sës rëkk ak jàkka te buñ wootee pour ñëpp daje ci jàkk ji julli doo yow doo doo yow doo doo doo bokk ci ñu wuyu woote boobee lu ma ci sa piir néeg ngay jullee am nañu wax ne kon sa julli googee am na lu bari lu ca manki la salaata li jaaril masjid illa fil masjid mu mel ni kon e kon lañuy dundale jàkka kon bokk na ci la ca jiitu mu diitis ba saxawal julli yi juróom ci anam ak melokaan wi nga xam ne moom la ko solo borom subhanahu santaane muy wàllu jaamu yàlla googu waaye di fa saxalit ay nawaafil surtout ci lu demee ni weeru koor bu agsee e, ñu dajaloo fi di naawafil di ko dundal loolu lépp dafa bokk ci wàllu e, al ibada ci boppam bi nga xam ne moom lañ koy dundale kon mu mel ni ci biir dundal googu ñuy dundal jàkka nag ci wàllu jaamu yàlla googu nga xam ne mooy jaamu yàlla gi ci jiitu kon ña dundal itam melokaan ak waajtaay yu ñu war a mel muy faw war nañoo tànn kon imaam joo xam ne ju mat sëkk imaam joo xam ne ci wàllu xam-xamam akuk njubam akuk sellam ak disponibilité ba waxtu wu waxtu wu waxtu wi accès rek am na disponibilité boo xam ne dara du ko tënk noona it lañ war a tànn ñi nga xam ne itam ñoo koy wuutu waxtu wu amee ngànt ñoom it ci critères yooyu liñ leen war a tànne critères yi ndax ki kiy jiite jaamu yàlla gi gën a màgg ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi muy julli yu juróom dafa war a nekk nit koo xam ne tey ku ku ku ku mat sëkk eh, yilimaan lay doon muy charte yi war a daje ci yilimaan yépp dafa war a daje ci ak moom te la ci jiitu mooy xam ak xàmmee li nga xam ne mooy li aju ci wàllu julli lépp ci ay ponk ak i charte waaye nekk nit koo xam ne day nekk ku jub koo xam ne kenn du ko mën a jam ci ay comportement ak i ndax nit ki eh, jiital koo xam ne tey ca biir koñ ba nit ña am na ca lu ñu xam ci moom loo xam ne doonte tekkiwut bañ koy jiital moom bu jullee ci moom xelam ma ngay dem ca loola kooku itam xelam du du dal Euh, moo tax euh, fokk dañoo war a tànn koo xam ne euh, duñ wax ne kat maanaa ci di ko tànn ci yeneen critères yu dul yi ñu wax duñ ko tànn ci ne moom dëkk bi wala doom yi borom dëkk bi la wala bii wàccuwaay la fi am déedéet ci critères yi xam-xam yu ànd ak njub ci lañ koy tànn ña nga xam ne ñooy naayib ya it noonu waaye ña nga xam ne it ñooy noddukat ya di woote ñun ñëpp itam ci critères yi ñu leen war a tànnee mooy xam xam ak xàmmee ba noppi nekk nit ñu jut ñoo xam ne kenn du leen mën a dut baaraam kenn du gis ci ñoom luñ leen di xeebe ndax loolu lépp rek bu amee dafay jeexital ci ñi ñuy woo ak liñ leen di woo nañ cay taxawaay bi ñu ci war a amee kon loolu dafa nekk ci loo xam ne matuwaay la yoo xam ne ci biir idaara muy gestion jàkk la ci jiitu mooy tànn ñooñu tam bu équipe naka noonu mbooleem ñi nga xam ne ñooy équipe bi nekk ci biir jàkk ji itam même bu dul ñuy nodd ñi nga xam ne ñooy defaraat sajaat yi di ko lalaat ak ñi nettuwaay ñoo ñépp itam dañoo nekk ñoo xam ne dañu leen war a tàggat ci wàllu googu ñuy nekk ñoo xam ne ñu xam lañuy doon ñu xam ne ndax lu tollu néegub yàlla ah képp koo xam ne yow lañ féete nga yor gestion ba saytu ko nag ah waruloo réere nag lan mooy àq yàlla ja waroo réere àq ña nga xam ne daami yàlla ya fay daje ba mën a sàmmoonte ak moom kon dañ leen a war a euh, équipe bi nga xam ne ñooy war a nekk ci biir jàkk yi ni koy dundale mooy dañ leen a war a tàggat bu baax a baax gannaaw ci xam ak xàmmee li li li tax ñu taxawal jàkk ji muy jaamu yàlla ga ak la ca aju lépp ci ay ponk ak i charte ndax képp ku fa ñëw kat te réere ko koo dajal ci ñoom da ngaa jàpp ne moom nga ko war a laaj te mu nga laaj ko ko nag mu réere ko dara dara jëru ko kon nag équipe bi nga xam ne ñooy nekk ci biir jàkk ji lu néew néew war nañ leen a jàngal seeni farata li nga xam ne mooy faratay julli ak sunnay julli ak la ca aju lépp ba ba euh, euh, jaay yàlla bu jox ba agsi fa am dara lum ca réere bu la ko laajee nga mën ko xam ko tàggat boobu daf cay am solo lool ci wàllu xam waaye tàggat leen itam ci wàllu ay jikko ak melokaan yu baax xam leen itam jàkk mooy néegub yàlla boo xam ne fa la ak accueillir gani yàlla yépp kon nag gani yàlla yi yow mi yàlla terale ñu dénk la ndee bi nga war leen a eh, accueillir dafa war a am ay melokaan war a nekk sew ci comportement nekk ku yaatu ku xajoo ñëpp xam ni ñëpp a fiy ñëw ñu xam dañ fi ñëw ñu xamut duñ fi ñëw dégg ngeen addisu eh, bi nett li waa jee ñëwoon ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi nekk koo xam ne ci àll ba la jógee rek xamut daal di egsi rek soxla soxla boppam rek daal di tekki tuba ji bëgg daal di kii am ñu am ñu jóg bëgg bëgg kii yonent bi ne déedéet bëgg taxaw maanaa eh, song ko xam nga buñ ko songante xas na fa la muy def yokk joote la ndax moom ci benn barab la nekk buñ defee man ko te songa nag day jóg rek génn mu muy sottiku di kii yonent bi ci ab yaram da leen bàyyi leen ko ba mu def lim def ba àggal bi mu defee lim doon def ba àggal yonent bi woo ko xamal ne ko fii kat néegub yàlla la wax ko it daraje eh, daraje ji néeg ba am ak wàccuwaay bi mu am ak lu mel noonu ku ko soxlawoo kat lu jiitu ngay ñëw fii dangaa war a waajal sa bopp lu jiitu ngay ñëw fii ndax tuy teggin sax eh, eh, nga dugg fi ci ci ci ci ci sobe waxuma def ko ba noppi sax te jàppoo sax du sobe waxumaa ñëw di ko fi def kon noonu yonent bi jàngale ci noonu ñu jëflanteeg noonu noonu la jàngale ci ñi nekk ci biir jàkk ji dañuy war a xam ne ñoo loola aman ci jamono yonent bi ba léegi mi ngi am e, ay nit ñoo xam ne ñi ngi ñëw ci biir néegu yàlla bi waaye réeréw ñoo àq jëm war a yor ak melokaan ak teggin woowu kooku nag bu agsee du koy gëdd du koy jànni du koy gërbal ndax da ngaa xam ne ci néegub yàlla nga nekk néegub yàlla nag lépp lu ñuy jàngale ci orma ak i teggin ak yaatal fa lañ ko war a jàngi kon équipe bi équipe bi nga xam ne mooy gérer jàkka yi dañ leen war a jàngal ci loolu même ñi nga xam ne euh, euh, dañoo nekk sax di dellalaka lalli aka bale ñëpp itam dañ leen a war a jàngal euh, ba ñu xam seen diine la aju ci ponk julli waaye dañ leen war a tàggat itam ci yar ak comportement ak melokaan bi nga xam ne ku nekk ci néegub yàlla moom nga war a moom nga a yor képp koo xam ne yaay accueillir di teertu gan yàlla yi noonu nga war a mel kon loolu lépp dafa nekk loo xam ne lu ca lu ñu war a la ci anam yoo xam ne yu mat sëkk muy équipe bi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy yore loolu nga xam ne tey eh, mooy lépp lu aju ci jaamu yàlla gi ak lépp loo xam ne lu aju ci wàllu jàkk ji ci wàllu googu mu mel ni baneen majaal ba ca toppaat te am solo lool mooy bi nga xam ne lu jëm ci wàllu jàng ak jàngale ak jubbanti nit xam ngeen ne jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nekkan université bi nga xam ne dafa nekkan taxawaayu eh, école bi nga xam ne mooy école maternelle bi nga xam ne tout tànk yu mel ni yéen ñii ma jàkkaar lool lañ fay tàggat waaye nekkat école boo xam ne itam ñi nga xam ne ñoo weesu étape bi ngeen toll fa lañ leen di tàggate mooy ñi nekk ci marxala sanawi wala i'dadiya waaye nekk école boo xam ne it ñi nga xam ne dañoo nekk ci marxala jaamiya fa lañ leen di tàggati nga xam ne niveau yëpp ci niveau yi xam-xam yëpp dañ ko faraan joxe yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan sàmmonte comme ni ko Seex Xadim doon di sàmmonte ak mustawayaati nit ki kenn ku nekk boo ñëwee la tolloo ak yow ci ab bind tolloo ak say at tolloo ak sa dund ñu jox la ko ba mat sëkk ba tey xaala rasulullahi ju ngeen dégg tey foofee la jibee ci wàll yépp nag nekkul loo xam ne itam nag lañ fa daan jàngale xeeti xam-xam yépp la yëngutoon ci xam-xam bi nga xam ne dafa aju ci suñu jaamu yàlla waaye dafa aju ci xam-xam bi aju ci liy defar pénc mi ak liñ fi nekk moo tax boo demee ci sunna na bi sallallahu alayhi wasallam ahadis yi bàyyiwul benn wàlla la ci jiitu woon nag ca lañ fa daan jàngale mooy xam-xam bañ fa jiitu woon ca bañ fa jàng mooy xam-xamu tawhid ahadis yi nga xam ne moo aju ci wàllu it muy wàllu tawhid kon xam-xam biñ fi wara jàngale itam bi ci jiitu bokk na ci tawhid muy wéetal yàlla ak jox ko lim moom te bokku bokku ko ak kenn ak la ca aju lépp te wax ko léegi la ca topp nag mooy jaamu yàlla gi yàlla bind ci nun bi farataal ci nun wax na it mooy sunu raison d'être ci kaw suuf moo tax mu indi fii te muy loo xam ne itam amul kenn mbaa lenn lu ko mën a teggi ci ñun muy xam-xam bañ fay jàngale itam muy xam-xamu diine boobu nga xam ne moo aju ci xeeti jaamu yàlla yooyu muy lu aju juróom ak lu jëm ci wàllu euh, azaka lu jëm ci weeru koor lu jëm ci aj màkka ak li nga xam ne mooy axwaalu saxsiya muy lu jëm ci code de la wala code familial muy ah, yorinu kër tàmbale ca labat ga ba ca takk ga ba ca yorin wa ak yarinu njaboot ga loolu lépp tey muy xam-xam yoo xam ne dañ ko fee war a jàngale dañ ko naka noonu la aju ci jinaayaat muy xam yi nga xam ne yépp moo aju ci code pénal yooyu yépp di muy xam-xam diine kon xeeti xam-xam dañ ko fa war a jàngale waaye xam-xam yi nga xam ne sax dafa aju ci nan la ñuy jëflantee moo moo amalaat yooyu yépp xeeti xam-xam yooyu yépp ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam université la boo xam ne tey mboolem xeeti xam-xam yépp dañ ko fa doon jàngale dañ ko fa jàngale di ko jàngale ci ay mustawayaat nag yu wuuti kenn ku ci nekk boo ñëwee la tolloo ak yow ñu jàngal la loolu itam e, buñ ko seetee naka noonu Seex al Xadim radiallahu anhu e, tey boo xoolee biir e, fii nu nekk tey muy maktaba bi mu daal yi fi nekk yépp ñu dajale ko muy tudd ko ay mañ moo a mañ moo a shora mañ moo a kubra mañ moo a yu baree bari ba war a mën a nekk ay juróomi mu jàllat ak yeneen yoo xam ne tey <clears throat> dajale nañ ko yeneen i borom xam-xam dajale na ko tey jawaami ul kalim bi bàyyi sëriñ si dajale ak yeneen yooyu yépp tey moo nekk euh, résultat wu njàngaleem sëriñ bi ca jàkkay sëriñ bi ak jataayi sëriñ bi yi nga xam ne ca biir jàkka ja waxtu wu julliwaa ba noppi ca la daan joxe dars yam daan joxe moom la mag ña bindan mag ña ko fekke woon moom lañ bindan E ba tey toxal ko mu nekk tey e, mu jàllat yi nga xam ne tey muy mañ moo ay yi ngeen dégg yépp tey muy mañ moo suxra bi Seex Abdul Ahad njëkk dajale ak mañ moo bi ci e, topp ak mañ moo ay yi nga xam ne Sëñ Mat Jaañ dajale na ko ak jawaamiul kalim bi ma wax léegi ak xikam yi nga xam ne ay góor yàlla yu baree bari dajale nañ ko ba mu nekk tey ay mujalladaat yu baree bari lu ci nekk lu ne ci duruus yi nga xam ne Seex Xaadim ca jàkka ja waxtu wu julliwaa ba noppi la koy joxe ca lañ dajale loola ngir dundal sunna yonente bi sallallahu alayhi bi nga xam ne moom la doon def waaye ña nga xam ne ñoo ko daan bind itam ñoo ko daan dajale itam di ko bind ñoom it dundal sunna saxaaba yi nga xam ne ñoom lañ daan def ci pegg yonente bi sallallahu alayhi wasallam demee ni Abdullah ibnu Omar Abdullah ibnu Mas'ud ak gaa yooyu nga xam ne ñoo daan yër wër yonente bi sallallahu alayhi wasallam di eh, eh, eh, tasjiil la nga xam ne moom la doon bind sëriñ bi noonu la aman ñu mel noonu ñoo xam ne ñoo ko doon wër ñu ñu ñu ñu ràññi ca ku mel ni sëñ Maxtaar Bintaloo bokk nañu ca ràññ sëñ Mouhamad Lamine Diop eh, ak Baye Sëriñ Sill sëriñ Walaay Busa ñu ñu bare bari ba ci ba sëñ Mbàkke Kanni eh, ñooñu tey di ay góor yàlla yoo xam ne tey ñu ko daan wër la E di e, e, maanaam bind loolee nga xam ne da ko daan da daan wax bu jataay bi jàllee bañ am ak féex ñëw gaaral ko ko lu mu ci war a soppi soppi ko ca lu mu ci war a jubbanti jubbanti ko ca comme ni ko suñu laay bu ñoom doon nettalee loolu lépp kon muy dundal loolu muy dundal jataayi xam-xam yooyu kon loolu sunna soo su nekk di loo xam ne dafa yaatu tey boo demee tey ba léegi ci masjidul annabawi bi nekk ma madinatul munawwara boo taxawee ci digg ba koñ boo xool ca nga taxaw ba fa fa sa bët yam ay xalaqaat ngay gis ñee ña ngay jàngale tafsir ñee jàngale ulum ulumul hadis ñii di jàngale ulumul quran ñii di jàngale fiqh comme niñ ko gisee naka noonu jàkka yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci eh, adduna bi yépp itam eh, tey roy sunna yonente bi sallallahu alayhi ci loolu ay ay noonu lay noonu la noonu la demee boo demaat ci Égypte ndeysaan euh, soxna Nafisa di sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di kàng fóore jàkkaam ja soxna Zeynab yooyu yëpp tey jàkka yi boo demee masiru si si Xuseyn euh, euh, Seydina Xuseynu gis nga Cheikh Mouhamad Mutawalli Sharawi Mutawalli Sharawi benn téere la taalif muy Ijazul Quran boo xam ne moo ko bindal boppam te fi bàyyi ci ay muallafaat ay asaraat la ay fukk waaye ca jataay yooyu mu doon def la aman moom itam benn docteur boo xam ne moom itam dafa spécialisé wu ci kulliyatul lugha arabiyya la génne e, ñaw xalima lool moo daan jël parce que moom dialecte la doon wax li ci ëpp ci ay waxam e, pour mën a wàcc ba ba ba tolloo ak nit ñi ci ci dialecte e, égyptien la la wax muy daari jiyee li ci ëpp ci ay waxam loolu lay doon waaye nag ki nga xam ne moo koy taarib ci arab yu leer tartib ko ba mu nekk ay téere kooku moom Euh, docteur la woon boo xam ne dafa spécialisé woon ci loolu nga xam ne kon jàkka yooyu yëpp noonu kon jàkk nekk loo xam ne tey eh, eh, njàng mañ fay jàngale dafa barkeel lool ndax euh, roy gi ñu ko royee ci sunu yent bi sallallahu alayhi wasallam eh, dafa tax loolu mu yor wàccuwaay boobu ngeen gis fii ci Touba it fa tabaarakallaahu dundal sunna soosu ak wéyal ko moo waral Cheikh Mouhamadul Fadil radiyallahu anhu bi nga xamee ne taxawal na jumaa ji ba mu àgg mu daal di fay taxawal daarul maarif muy daara ji wax baay sëriñ bu sa imaam ak euh, baay sëriñ jatara ñoom ak ña nga xam ne ñëpp ñooy ay boromi xam-xam ne leen séerub liggéey yéen ci biir jàkka ji kat li ci jiitu mooy euh, njàggalem xam-xam mii ak teg nit ñi ci siraatal mustaqim ci wàllu tawjiid ak irshad tey muy daarul maarif bi nga xam ne tey mooy wéy ba nun ñi ñëpp tey noonu la doon wee ci jamono yi ba ak sëriñ Asi Jaxate nga xam ne ñun ñëpp tey mën nañu wax ne ca la ñu génnee lu bari ci lu ñu jàng foofa lañ ci jaaree ba léegi tey jii e, mi ngi continuer di wéy loolu yi nag dafa nekk loo xam ne dafa war a nekk sunna soo xam ne ci jàkk yëpp la war te yam rek ci jenn jàkk ji gën a mag waaye jàkk yëpp dafa war a am rôle boobu muy war naa am ku fa nekk di jàngale alquran war naa am ku fa nekk di jàngale xam-xam xeeti xam-xam yëpp war naa amit koo xam ne ku féetewoo wàllu waaraate ndax tey Seexal Xadim dafa am lu mu jàngale loo xam ne lu am solo yaay yooy sibiaana la tastaxilu anil huda wa bil ulubi staxilu fastaxilu bil hifzi waxtilaa wajtani bi ma a shaqawa loolu ndaw ñi toll ci jàng la ci wàllu daara ak jàng ci téere waaye wamanta daareka la si xat faata nag min al laxa wa amaral awqaata bi tawbati nasuuxi wal iqbaali ilaa ilaahi faasu kooku mag ñi tadaarug boobee nag la leen ciy mën a dimbale mooy alaqaat taalim yi nga xam ne dañ koy def eh, mooy alaqaat maanaam tawjih wala irshad yi nga xam ne dañ koy def parce que tawjih ak irshad dafa bokk ci li nga xam ne mooy liy dundal jàkka liy dundal jàkka ndax ñi nga xam ne tey fa tabaaraka ay mukallaf lañ eh, yoo xam ne am na lu leen rek seen diine ak seen wàllu tawhid ak seen wàllu aqida ak wàllu jëflante ak nit ñi loola la leen mën a dimbale ñuy tànn ay thèmes gannaaw bu ñu gendikoo parce que boo defee observation xool société bi liñ gis ne manqué na ci min xilaali tasarufaati nit ñi ci ngay man a xam thème yi nga xam ne tey moom la nit ñu soxlawoo ñu ñu leeral leen ci lan moo ciy njàngaleem diine ak njàngaleem islam loolu dafa mat a nekk di bàyyi xel bu baax a baax a baax ba nga xam ne tey dars yi ñuy joxe ci wàllu taw tawhid ak irshad ñu di ko jële ci biir li gis ci biir penc gis ko ci biir mbedd mi ci loo xam ne gis nañ ne kat ay comportement ak melokaan la yoo xam ne dëppuwut ak njàngaleb lislaam dëppuwut ak njàngaleb sëriñ bi te ña koy def la leen ko yóbbee ñàkk a xam rek la ñooñu nag dimbale leen comme mënoo leen a delluwaat ci biir daara mooy di taxawal nag ay jataay yoo xam ne di profité occasion yi nga xam ne nit ña danañu obligé wu dajale ci jàkka ja nga profité wu ci occasion bébé di joxe ay dars yoo xam ne dafay aju ci loolu loolu bokk na ci fa tabarakallahu li ñuy def léegi tey muy waxtaan yi nga mooy jiitu euh, xutba imam bi ci àjjuma ñu tànn ay thèmes yoo xam ne day varié et di istijaabal li nga xam ne mooy li nit ñu soxlawoo ak li nit ñi di dund ci biir penc mi tañ ñu war leen cee leeral lan mooy ci seen taxawaayu diine loolu ñu di ko ñu di ko varié ci wàllu boobu waaye bañ a yem ci loolu tey ni ñu koy defee tey bu weeru koor jotee tey fa tabaarakallahu ci jumaa yi Tuubaa ji ak jumaa yu baree bari ñuy profité ne nit ñi kat danañu màng weer wi ci bëgg koo màng ci jaamu yàlla ñuy profiter di tànn ay thèmes eh, yu am solo eh, di ca waxtaane loolu lépp bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy dundale jàkka eh, muy façon njàngi njàngalin wu mel noonu njàngal alquran njàngalem xam-xam waaye di def itam ay tawiya nit ñi muy ay dars yoo xam ne darsu tawiya la ak irshad ci ñi nga xam ne tey ay mukallaf lañ yoo xam ne jànguñu woon wala jàngal nañ sax waaye soxla nañ ko leen di fàttali nag ndax amatuñ jotu dellu ci téere yi loolu lépp itam dafa bokk ci li nga xam ne moom la ñuy dundalee li nga xam ne mooy jàkka ndax euh, loolu mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye mooy sunna Seexul Xadim ci boppam itam mooy sunna Seexul Xadim ci boppam ci bi fi nekkee bokk na ci li nga xam ne itam muy majaal bu am solo la e, muy majaal yu chima yi seen bopp xam ngeen ne e, bokk na ci li ëpp solo ci wàllu googu tey lu de benn zakat ak la ci aju lépp xam nañ ni ci jamono yonte bi sallallahu alayhi wa ci biir jàkka ji mooy barab bi nga xam ne képp koo xam ne ku tollu diggante soxla ku la dimbale fa nga koy gaaral gaaral ko yonente bi waaye lépp loo xam ne lu bàyyi ko ci jullit yi te loola tax koo jóg te asaka jiitu ca foofee lañ koy seddalee ci jàkk ji ak li ko wër mooy barab bi nga xam ne fa la ñuy séddalee buñ jëlee ca baytul maal lañ koy indi jullit yépp daje fa kenn ku ci nekk ci ña ko soxlawoo ñu yëkkati sëb cër jox la kon asaka dafa Eh, jàkka dafa nekk bokk ci taxawaay bi ëpp solo ci ci ci ci loolu mooy dawrul ijtimaa yi bi nga xam ne da koy def te mooy di accueillir li nga xam ne mooy bëgg-bëgg ak xalaat ak soxla nit ñi di ko bind et eh, waaye di soññi sensibiliser nit ñi itam ci wàlluk asaka sensibiliser nit ñi ci wàlluk sarax sensibiliser nit ñi ci lépp loo xam ne dafa aju ci tabaruat e, wala musaamaat yoo xam ne dañ koy def ci masroat al islamiya wal ijtimaaiya loolu dafa bokk ci e, taxawaayu jàkka ndax jàkka fi la nit ñi di daje waxtu yu juróom bu dee jumaa fa la ñuy daje ajjuma bu nekk maanaa ñi nga xam ne ñooy waa quartier bi ci jàkka ja ñuy daje di fa julli julli yu juróom juróomi yoon ci bis bi waaye ci jumaa ja it dëkk ba di daje kon mbooloo mi ñaari mbooloo yooyu yëpp dañ cee war a profiter di sensibiliser nit ñi ci ne kat am na ñu ngeen dëkkal seen moroomi jullit yoo xam ne bu ñu añee duñu reer bu ñu reeree duñu ndekki buñ jógee jëm ci barab bu mbooloo may dajee dañuy am jafe-jafe ndax amuñu lu ñu sol am na ci ñoo xam ne ñu nga wéradi e waaye ñemewu ñoo dem sax hôpital ndax bu ñu demee hôpital lañuy la ñuy fay rek ci consultation képp sax reçu ba mënuñu ko jënd waxuma ordonnance bi ñu leen di bindal ñooñu ñëpp nag dañ leen war a geesu loolu lépp nag sensibilisation boobu bokk na ci rôle yi ëpp solo ci jàkk war a def pour yëgal ko jaam yàlla yi wut nag kees goo xam ne dañ ko fay teg wax ne nag kees ngi fi nag goo xam ne lépp lu waaye di joxe ca loola maanaa e, boo ñëwee ñu dugalal la ko foofee bu séddale ko ak jottali ko ñi nga xam ne ñoo ko aajowoo jotee danañ jàkk ji dana taxaw ci def lu mel noonu kon rôle lu sensibiliser nit ñi ci geesu way néew ji doole yi dafa bokk ci taxawaayu jàkka rolu maanaam istiqbaal soxla yi nit ñi borom soxla yi note ko ba bu geesu leen jotee nga mën koo def daf caa bokk waaye bu ñu demee ba war koo séddale it séddale ko ci ak maandute ak kenn ku nekk la cay sëb cër ñu jox la ko ba mat sëkkit loolu daf ca daf caa bokk la ci jiitu nag mooy asaka ndax xam ngeen ne asaka juróom-ñetti catégorie yi ñu tudd bokk na ca alfoqara wal masakin waaye bokk na ci wal mu àllafat xulubu lu am solo la mu àllafat xulubu lu am solo la jeexagut tey la gën a bari waaw mooy ñi nga xam ne tey dañoo dugg ci biir islaam bàyyi diine jañ nekkan faw seeni bokk yañ ca bàyyi nekkalan ca foog ñu sanctionné leen lu bari luñ leen daan jëflante ak ñoom dañ leen koy xañ gém leen a xatal jéem leen kii fokk nag kon su mujtama bu yees bi ñu ñëw nekk fa gan nag ñooñu fokk ñu war leen a xajoo bokk leen yaatal leen dimbale leen bu baax a baax ba duñu yëg eh, léegi nga xam ne tey moom lañ ñàkk ci wan gannaaw bu ñu wan gannaaw ñañ nekkalan ci seeni bokk ak lañ nekkat ci seen pas-pas loolu lépp it kon eh, asaka eh, bunt yooyu nga xam ne moom la moom la moom la moom la tudd yépp tey dafa bokk ci roolu jàkk ci boppam mu di ko leeralal jullit yi ci wàllu asaka mu di ko leeralal jullit yi di leen ci soññi di soññee ci asaka ñi nga xam ne li ñu am ci alal war nañ caa mën a génne asaka bu waxtu génne ko jotee muy boo at mi lislaam yi di di di jeex ñu jëm tarkiis waxtaan yi ak waaraate bi ak xut bay ci loolu di amal sax ay waxtaan ci biir jàkka ji ci lu dul eh, waxtu ajjuma rek pour sensibiliser nit ñi ci wàllu googu même man di fi woote sax bu ñu ko mënee sax woote fi ay ay conférence ak i waxtaan yoo xam ne dañ koy médiatiser pour sensibiliser nit ñi ci wàllu asaka ak bunt yi nga xam ne ci lañ war a dugal asaka bañ xàmmee ko bu baax a baax ndax bari na ñoo xam ne ñuy génn asaka mais malheureusement la tax taxawaay bi mu war a am ci penc bi amu ko mooy dañoo réere bunt yañ ko war a dugal benn par benn parce que asaka kat aaya bi bi muy wax ci balaaxatul quraan jëfandikoo wut aw waaw la jëfandikoo inama sadaqaatu lil fuqaraay wal masaakiin wa wa wa wa kon nag kam jëkk a tudd ak kam mujj tudd ñëpp bañ fa bokkee nekk ñoo ci bokk wàcc waay waxul ne nañ jox diw bu fa nekkul diw déedéet ñoo ñu mu tudd bu fekkee ne waxtu wi ñuy génne asaka bunt yépp a ngi fi dañ ko war a ci bunt yooyu ñu am ci ñu am ca kepp kenn ku ci nekk ñu bàyyil la sa cër nga jox ko loolu lépp rek sensibiliser nit nii daf caa am bu fekkee daf caa am bunt boo xam ne nag waxtu wi ñuy génne asaka moom amut taxawut ñu seet lañ fa war a dugal ñu doog koo séddale ci yeneen tasaare ci yeneen bunt yi ci yeneen yi ñu dafa nekk taxawaay bu mat sëkk buñ buñ war a waaye euh, jàkka yit nekk ci du yam ci rek jamu zakat waaye taw siya muy séddale ko ci ci anam bu maandu loolu dafa bokk ci li nga xam ne jàkka yonente bi sallallahu alayhi wa moom la doon taxawee jàkka yi góor yàlla yépp moom la doon taxawee ñu xam ne dafa bokk ci rôle euh, bi ëpp solo ci wàllu googu waaye bañ a yem rek ci asaka ñu xam ne sadaqaat yi asaka mooy li yàlla farataal ci alal ji waaye gannaaw boo ko joxee ba noppi te dese loo xam ne ëpp na la ca la soññee boobu ñëw ci alxuraan yépp jublu mën ngaa nekk koo xam ne it eh, xëy na sax la nga am ak gut ci nga mën caa génne asaka ak gagut ci nga am faj say soxla yi nga mënta ñàkk sa bopp ak sa njaboot ba noppi dese nisaab la nga dese mën naa bañ a mat nisaab joo génne asaka waaye nag mën na la tiwut mën na laa ëpp say soxla ba nga man caa yaatal ñeneen ñi nga xam ne yaa leen tane loolu du warugar waaye lu ñu recommandé la mën ngaa génne asaka ba noppi it def nga sa warugar yu ñu def waaye dese nga ci alal loo xam ne wax dëgg yàlla fa tabaarakallaahu tiwut boo génnee asaka ba noppi mën nga caa geesu way néew ji doole yi mën nga caa geesu it projet yooyu wala buntu yooyu nga xam ne moom la islaam wax yooyu yëpp itam boobaa lislaam dafa jàkka ji dafa war a leeral loolu muy bunt yooyu tey eh, eh, ndax dafa am eh, lu aju ci ñetti infa li ñuy joxe ci alal dafa dafa dafa ci li muy asaka ak li nga xam ne dañu ko recommandé ak li muy li nga xam ne mooy musaama ama ci li nga xam ne mooy masruaat al xayriya hadiye ci lay naka noona mën na dugg ci ci ci ci buntu ci buntu boobu am na ci téere bi ñuy waaji génn euh, loolu leeral leeral nañ ko foofu bi ñuy wax iskaliyati bi am alxadd alfasil bayna arashwa wa sadaka indiwaale nañ ca leeral nañ ca euh, lu lu lu mel noonu ndax euh, tey dañuy dañuy xaw a nuuroo lool diggante addiya ak infaq fi sabilillahi di ñoo xaw a jege ñoo lool te bokkuñu parce que addiya cheikh Mouhamadul Mortada mii laa ko seqal jenn ma jox ko ko ngir lan kóllëre gi nu seq ak bokk gi nu seq pour dundal bokk gi ak kóllëre gi moo tax ma di ko ko jox joxuma ko ngir ne dafa ñàkk wala dafa néew ji doole déedéet di taw sii xarawaat gi nga xam ne moom ma moo ma takkale ak moom muy bokk gi nu bokk lay dëgëral wala kóllëre gi nu bokk wala dëkkaale gi gi nu bokk wala service bu bokk di bokk di liggéey ma tukki jaar ci fu ñuy jaay ndëndee ay parfum ma gis ma jënd parfum jëndaaleel ko wala ma gis téere boo xam ne jàpp naa ne téere bi ngir moom bu am solo la am na njëg gi bu ko giseen dana ko jënd waaye comme maa ko ko njëkk gis mu jënd ko jox ko ko cadeau la boo xam ne boo koy jox wala sa seyxul muallim bi lay jàngal te loolu na jàngal ngir yàlla rek nga delloo ko njukkal reconnaît reconnaissance jox wala sa seyxul murabbi muy sa sëriñ bi nga jaayanteel jox ko sa bopp nga nga nga nga nga maanaam pour taw euh, maanaam tawsiix maanaam rawabitul mahabba yi jaar sa diggante ak moom muy cofeel gi gën koo dëgëral ak raddul jamil bil jamil ah loolu ba tey muy delloo ko njukkal ci fam la féete ci wàllu diine yow nga war a jàpp ne kat yooyu war naa am loo koy terale loolu ki nga koy jox am na sañ-sañu def ca lu ko soob ndax moo ko moom mu mu mu wuute nag ak Musaa ama fii sabilillah Cheikh Mouhamadoul Mountakha wala beneen seex taxawalal yàlla jàkka wala daaray xam-xam yëkkati kàddoom jëmee ko ci cépp koo xam ne ku bëgg a def lu baax te am loo cey defe loola moom kañ koy jox amul sañ-sañu jaarale ko kenn du dul fa tax ñu jox diggante boobu nag eh, day mat a xàmmee yoonu murit nag wax naa ko ci téere bi moom mësta dañ di ko xàmmee toujours dañuy am compte spéciale goo xam ne lépp lu jëm ci masora aat ya la cay dugg fa lay dugg dañ koy teqalee ak li nga xam ne moom sëriñ bi nga ko jox muy addi yi bopp di nga sëriñ Saliou boo masaa ñëw ne ko ci kii bi la jëm day da koy joxe bu dee nag loo xam ne da nga ko koy jox mu bàyyi ci suuf toujours loolu dañ ko daan teqalee bu baax a baax mu mat a xàmmee loolu nag dafay baax moo tax ñuy bëgg kiy joxe mu tax jiit toujours sax seex si bu ñu ñëw di joxe dañuy wax ne lii kat moo jëm ci liggéey bi lii amuloo lii nag mooy addi yi yooyu yëpp nag dafa nekk loo xam ne teqental googu pour nit ñi xam ko xam ne li ñuy def ci wàllu yàlla di jëm ci miskin ya li jëm ci way néew ji doole di jëm ci projet yi nga xam ne moo jëm ci barab bii fi nekk lu koy dundal ak barab yi mel ni moom ñu xam loolu nan la tudd ak joxe ci ban waay na am loolu lépp dafa bokk ci li nga xam ne jàkka dafa bokk ci ab rolam mu di ko leeral waaye saytu ko bu baax a baax di ko defee noonu kon loolu lépp mooy li aju ci li nga xam ne ci ci maja euh, loolu ijtimaa la ci euh, majaalu ijtimaa yi lay dugg ci jàkka waaye loolu ci joxe bi waaye mu amaat beneen majaal bu am solo muy islaahu zaatil bay xam ngeen ne jàkka mooy tribunal ci jamono yonent sala mooy tribunal bi nga xam ne fi la ñuy àttee ñi nga xam ne dañoo seytaane dafa jaar seen diggante ba ñu jooyoo béjoo ñu war a defaree seen diggante parce que xam nga ni islaamu saatil bay ni dafa bokk ci ponk yi ëpp solo ci lislaam ñu recommandé ko innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna na laa xayra fii kasir min najwaahum ilaa man am bi sadaqa aw maarufin aw istain bayna nas loolu dafa nekk islaahu zaatil nii dafa nekk loo xam ne muy defare ndax euh, ala kulli alin doomu aadama euh, doomu aadama rek la marti doomu aadama dafa tax fokk bu ñu dëkkee fokk rek saytaan di jaar suñ diggante bu ko defee boobaa nag dafa am ay taxawaay yoo xam ne tey jullit yi dañ ko war a am pour defare seen diggante barab bi nga xam ne nag mooy néegub yàlla bii mooy sunna ci ñu defee defee loolu ndax koo fi woo rek muy néegub yàlla ah boobaa nag lépp loo ko ñaan ngir jëm yàlla boobaa e, e, teggin teggin ak jox cër yàlla dadul dadul dëppoo ak nga di ko xañee loolu moo waral ñuy tànn barab bii nga xam ne du barabu kenn ñëpp ko bokk yàllaa ko moom di fa woo ñi nga xam ne e, dañoo dañoo seytaan dafa jaar seen diggante ba ñu réeroo ñu di ko de nga xam ne kon bokk na ci istaa uzatil bayni dafa bokk ci rôle bi nga xam ne jàkk daf ko war a def bokk ci role bi nga xam ne ñi saytu jàkka dañ ko war a def bu ñuy wax ñi saytu jàkka yi ñu ko war a def nag mooy duñ xaar rek ba ñu indi fi coow li ñu doog ko taxaw déedéet dañuy gàttandu sax coow li duñ xaar bañ indi fi coow li muy équipe yor loolu comme ñi dëkk ci biir jàkk ji ñëpp ci li jàkk ji ñëpp ay membre yi jàkk ji lañ kon buñ yëgee ne kat diw ak diw kat seytaane jaar na seen diggante duñ xaar ba ñuy ñëw déedéet dañoo war a yebal commission boo xam ne mooy dem ca ñoom woo leen ne leen ngeen ñëw wuy si kat ci limaan bu ilim buñ agsee kat fekk kenn ku ci nekk nag maanaam la war a jiitu ca nañ lay préparé ba nga xam ne boo ñëwee doo déborder préparé nañ la delloowaat la ci yàlla bàyyi loola xel ne li ko liggéeyu seytaane la ne leen nag ñëw leen fële nag euh, ñu def li lu lislaam sant ci biir yooyu yëpp dafa nekk ci taxawaay yoo xam ne tey bari aana lu bari lu yàqu loo xam ne ñàkk sàggane euh, role boobu nga xam ne mooy istaa usaatil bay mi te def ko ci néegub yàlla moo ko moo ko indi ndax euh, jàkka dafa bokk ci rolam muy muy muy muy gëstu nag bu baax a baax di xam liy xew ci ñi nga xam ne ñooy ruwaadul masjid liy am li fay xew surtout ci loo xam ne nag lu jaaduwul la lu war a lu warut am ci diggante jullit ak jullit surtout ñoo xam ne ñoo bokk fu ñuy jullee waxtu yu juróom yépp loolu euh, ñuy am ay réeroo ci seen biir ba noppi daje ci néegub yàlla bi ñu bàyyi leen noonu loolu jaaduwul kon taxawaay boobu muy isla usaat bay ni muy médiation sociale dafa bokk ci rôle bi ëpp solo ci bi nga xam ne jàkka daf koy jouer équipe bi nga xam ne ñoom lañ dénk jàkk ji muy imam ji ak yi nga xam ne mooy borom yi xam-xam yi fi nekk war caa taxaw jàppale ko ci bu baax xam ngeen ne jàkk it eh, bokk na ci rôle sociale bi muy ji muy takki sëy sëy foo ko takkee baax na foo ko takkee rek baax na wér na waaye nag lus di def cu baax lu baax lu nekk defe ko ci jàkk buy déggub yàlla dafa gën a baax gën a barkeel moo waral eh, eh, mu bokk ci li nga xam ne sunnas mag ñi la Euh, takkub sëy ñu di ko defee ci biir jàkk ngir barkeelu ci néegub yàlla bii e, waaye nag mën a profité it ci fa ñuy takk imaam bi ak ñay takkit mën a xamal ñaar ñiy dencante e, li nga xam ne mooy aqd bii e, te mooy contrat bi jaar seen diggante kenn ku ci nekk lan moo ci sa taxawaay bi nga ci war a taxaw lan mooy ci say wargar yi la ci islaam gàll ak lan la sëy di tëddee ak la ca aju lépp loolu lépp ñu di ko defee ci biir jàkk ci te buñ ko fa defee it loolu dafa bokk ci roolu jàkka ñu xamle loolu muy bala ñuy takk sëy bi wala buñ ko takkee ba noppi ñaar ñi ko seq kenn ku nekk ñu xamal la li islaam wax li islaam santaane ci ñaari way dencante kenn ku nekk ñu tënkal la lan mooy sa warugar ci biir soci euh, contrat bi wala lii ngeen seq tey muy sëy bi muy néegu sëy bi li ciy taxawaayu góor gi na ko xam li ci taxawaayu jigéen ñi na ko na ko xam waaye li ciy taxawaayu bokk yi itam nañ ko xam ndax gis ngeen aaya alxuraan ba nam ko waxee dafa wax ne waxtu woo xamee ne dafa am eh, ay tànk-tànk wala ab réeroo bu jaar seen diggate ñoom ñaari waaye de denceen fab asu xakaman wa xakaman min ahliha fab asu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha kon loola kon ñooñe teel koo xam xam ne ñoom ñooñu kat bu fekkee dafa am vidéo bu war seen diggante ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo leen boole woon di seeni kilifa ñoo war a jóg dox ca lañ ca war a dox lépp buñ ca lottee nag boobaa mën nañ koo yóbbu nag ci jàkk ja sàkku ci imaam mi nga xam ne mooy kilifa ñu kat ñu dajale leen fa ñu war koy loolu lépp itam dafa nekk loo xam ne ci bi ñu takk sëy bi dafa nekk loo xam ne dafa mat a leeralal Eh, ñaar ñi way dencante bañ xam ko loolu lépp ci biir jàkk ji dañ ko war a defee muy muy muy muy yooyu naka noonu it jàkk ji moo war a nekk tribunal l'islam euh, bëggul lépp loo xam ne lu ñu war a mën a def ci ëttub islam def ko suñ biir waruñu ko yóbbu faneen muy même ñoo xam ne dañoo béjoo ci biir kii bi au lieu ñu di leen bàyyi ñuy dem tribunal nañ ko gàttandoo nañ ko gàttalu nañ ko gàttalu ne leen daal nañ leen gis nañ def li islam wax islaamu saatil bay nii nañ nañ waxtaan suñu biir dellu ci biir islam te bañ a bàyyi dem tribunal di weeroo ak yooyu nañ ko defee fii rek ci biir islam buñ koy defee tànn ñoo xam ne eh, maanaam fa tabarakallahu eh, ñu sel lañ eh, ñu maandoo lañ parce que islaamu saatil bay nii dafa am solo de du caagéen ñëpp a ko man de gis nga Seexal Xadim na mu ko tànnee woon ca njaareem wax naa ko ci xitma dafa tànnan bi mu taxawalee njaarim dafa tànnan ñoo xam ne ñoo doon def istaawu saatal bay ni kër si Daaru Asan Njaay jiir kër soxna Fat Jafa lañ ko daan defe ay nit la tànn yoo xam ne tey dafa leen wax ne lépp loo xam ne lu am ci seen biir kët bëgguma ñu di ko yóbbu ci tubaab yii ñu di leen atte nañ ko atte seen biir dafa amoon commission bu mu taxawalan boo xam ne ñooñu waaye dafa leen tànnan ci xam-xam ak xel mu sell ak ñub ak ak maanute parce que istaawu saatu bay nit ku maanuwut mënu ko ndax lu ñu waxtaanee ci mbir mi boo génnee tasaare ko déedéet ña ko fekke képp ñoo war a xam la fa ne waaw muy képp ak ña di dajale ñoo ko war a xam ña leen di dajale am war a am secret ak bambiru biir boo xam ne lañ waxante ci biir ak na mbir moo waruñoo génn di ko tasaare ñun kat ñee lañ doon euh, dem sa kër naa ah ñun kat diw ak diw lañ doon lañ doon kii ñu jotale nga ne ah nangam nangam kenn ku nekk tasaare déedéet ista aw saatil bay di dafa am nu mu war a mel dañoo war a tànn nit ñu maandu ñu am suutura ñu am bambiru biir ñu koy def loolu lépp nag sunna la su yonent bi doon def mais sunna la loo xam ne say Seexul Xadiim ci boppam it daf ko def ci biir njaareem tànnan commission bu ko doon def kon islaahu saatil bayni boobu dafa bokk ci li nga xam ne e, itam e, e, dafa da dafa jàkk ji da ko war a am ci di defare ñi nga xam ne ñooy roadu masrabi yi te réeroo bokk ci li nga xam ne itam ci maanaam dawru majaal ijtibaa yi la ci jàkka la lu yaatu la mooy lu jëme ni e, wiqaaya wala ilaaj muy dawru sixi boobu ci boppam daf ci am solo lool lool lool lool lool boo tey ci sunu bokk yi nga xam ne tey ñoo bokk ab jubluwaay ci wàllu lislaam boo demee fu mel ni Égypte nga xam ne tey tarixa moom dañoo wax ne xam naa bu kenn suñ ci wax ne fa la fekk baax itam nañ koy dundee nag néew nañu koy dundee eh, boo demee ñoom seen jàkka yi surtout jàkk yi nga xam ne dafa mel ni suñu jàkk yi nga xam ne ay nit yàlla ñoo ko taxawal bañ génnee àdduna ñu denc leen muy comme ni mu amee ci suñ barab yi ñu denc leen foofa ñoom rôle bi ëpp solo ci bii barabu nit yàlla boobee maanaa di taxawee ci biir société bi ak pénc mi moo di côté wér-gi-yaram ca la bokk maanaa jàkka yu ci baree bari day am ñun bi bi fa Cheikh Mamadou Mourtada ñëwee 1985 ñu dem ci Abul Wafa mu mu ganale Sëñ Mourtada ci benn bis bu yaatu bu am solo gannaaw bi mu wax koy taxawaay ya ñu am ci wàllu googu bokk na ca yañ ñu wax jàkk yi mooy jàkk ji ñu fexe ba mu am bu ma nee am clinique mu am ko wala po poste de santé boo xam ne day takk ci biir jàkk ji ñi nga xam ne dañoo aju ci biir jàkka ji tey ay taalibe nee na ñoom seen addiya du joxe xaalis ay heure la kii faj bët day wax ne bis sangam bis sangam man joxe naa addiya nangam sama temps ku ñëw ma wisit la gratuit consulté la gratuit kii faj feebar bu jëm ci diabète kii faj lu jëm ci tension feebar benn bu nekk ca spécialisé wu médecin la wala wala infirmier la wala lu mën a doon wala sage-femme wala lu mën a doon ku nekk day joxe addiye ay waxtu ñu taf ko ci ci tableau bi yu taf ko ci benn benn benn kii liste boo xam ne tey boo ñëwee calendrier lay doon boo xam ne da ngay ñëw xool kenn ku ci nekk wan waxtu lay ñëw ban heure lay ñëw nga ñëw mu faj la gratuitement boo noppee pharmacie bi fi nekk dañ koy subventionné liñ koy subventionné li ñuy li xaalis bi ñuy indi ci barabu sëriñ seex bi lu mel ni li ñuy de sànni ci biir barab yi da caa am partie boo xam ne subventionné loola lay doon nga xam ne tey ñi ñu recensé ñu dëkk ci koñ bi dañuy am carnet bu dee koo xam ne ku xaw a néew doole la boo jëwee buñ la buñ la buñ la consulter gratuitement boo demee booy jënd ordonnance bi dañ lay wàññil mën naa am 30 pour cent 50 pour cent mën naa am sox maanaam mu gën a loolu lépp itam wax nañ ñu ne bokk na ci seen programme boo xam ne buñ doon def gëstu naa ci ay jàkka yoo xam ne eh, ñoom taxawaay boobu lañ doon am nga xam ne tey eh, ci wàllu wér yaram léegi mu mel ni kon wàllu boobu tey eh, ca la tey jàkka yu bare bari tey ñu ngi roy ci loolu bu ñu amut eh, point de santé wala poste de santé boo xam ne wala unité boo xam ne maanaam lu jëm ci santé la itam di organiser ay visite ay consultation gratuite comme niñ koy def bu màggal bëggee ju bokk na ci rolu jàkka lu mel noonu mu di ko mu ko def seet ñi nga xam ne tey ci jumaa ji wala jàkk ji ay médecin lañ e mu ñaan leen ne leen yéen seen contribution bi ngeen def seet leen kenn ku ci nekk lu mu man joxe ci ay waxtu moo xam une fois par mois la wala une fois par quinze jours mu di fi ñëw su ko defee ñu yëgal ko ñi nga xam ne ñëpp ñoo ñoo ñoo nekk ci biir koñ bi tey jule ci jàkk ji ñu ñëw ñu di leen consulter gratuitement loolu dafa bokk ci rôle bi nga xam ne jàkka daf ko daf ko war di def waaw ndax ñi nga xam ne ñoo fiy julee si bu dee jumaa wala ñi fiy julee si bu dee jàkka du ci ñàkk ñoo xam ne tey ca loolu lañ spécialisé wu te buñ leen ñaanee loolu danañ ko mën a def tey dañ leen koo war a ñaan sensibiliser seen ci njariñ ak solos loolu loolu it mu nekk loo xam ne tey eh, lu am solo la ci role yi nga xam ne jàkka daf ko war a jouer mu des nag bi nga xam ne mooy li ñuy wax yépp nag ci biir gestion jàkka muy idaara bi dañoo war a taskiil ay lijaan ay lijaan yoo xam ne lëj na benn bu nekk dafa am lu ñu la war a dénk lëj na boo xam ne lépp lu jëm ci wàllu sixa lañ ko dénk moom mooy xool nag initiative yi muy jël ba jàkk ji mën a taxaw ci taxawaay yooyu jàkk ji mën a taxaw ci taxawaay yooyu moo xam tey bu dee jumaa ju mel ni jumaay Tuubaa ak jumaa ju mel ni jumaay Masaalikul Jinaan jumaay Masaalikul Jinaan eh, diggee woon nañ ko ndax am na fa benn ci jamonoy Covid bi am na fa benn espace salle bu mag boo xam ne tey dañ fa daan consulter nit ñi ak di fa jox ay kii bi fa président ñëwee sax waxaan na ne dañ koy def poste de santé jumaa ju mel ni jumaay war na am poste de santé parce que barab boo xam ne tey ay millier de personnes ñoo fiy jullee te nit ñi bokkuñu léeg-léeg nit ki mën naa ñëw crise malaise dal ko au lieu ñu naan dañu kii euh, euh, dañuy wooy euh, ambulance muy ambulance bi ñëw naa ñëwut yooyu ñu mën koo jël fi saa si dugal ci biir voilà day dafa dafa jumaa ji daf ko war a am barab yu bare bari dafa dokk ci rôle yi nga xam ne dafa am solo lool ci wàllu gu mel noonu même ña fay jullee ak ña fay nekk kenn ku ci nekk mën nga ñëw xëy am personnel bi dafa am ñu war leen di constituer di leen war a kii loolu lépp tey dafa nekk loo xam ne ñu taxawal ay commission yoo xam ne commission bii lu jëm ci wàllu sixa la jëm commission bii lépp lu jëm ci wàllu xam-xam jàngale la yor commission bii lu jëm ci bayaan ak irsaat la yor commission bii lu jëm ci wàllu comme niñ ko amee fii lu jëm ci lépp lu jëm ci entretien jàkk ji ci wàllu cat gi ak ci loolu la am commission bi yooyu yëpp dafa am ay commission yoo xam ne iraara benn bu ci nekk nag te ah ak accueil bi loolu lépp dafa am war dafa am ay commission boo xam ne mooy li ñu doon waxee wax nañ leen accueil bi ni mu amee solo accueil bi dañoo war a tànn même ñi koy def dañu leen war a defal formation muy góor ñi ak jigéen dañu leen war a formation bu dëgër ñu am yar am teggin xam ne ñi fiy ñëw façon bu mel nu nekk la loolu lépp dafa am ay ay ay ay ay commission yoo xam ne tey eh, bu bu ko yoree ñi nga xam ne ñooy def accueil ak ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy placé nit ñi buñ duggee ci biir jàkk gi ak nan la ñuy waxee ak ñoom ba ñu dégg message bi nga xam ne buñ buñ buñ koy def waaye dafa war a am nag kee euh, euh, bi ci ëpp solo lépp nag ah loolu lépp nag xam nañ ne buñ ko waxee ku ko wax ne tamwiil ñun dox ko tamwiil jàkk ji jàkk yi ñoo gën a soxlawoo kees spécial goo xam ne nag eh, li lépp nag lam soxlawoo ci ay koppar yuy tax mu dox da koy mën a am loolu itam bu ko defee ñuy sensibiliser nit ñi jullit yi ne fa ñuy dugal seen alal fa ñuy dugal seen alal fa ci gën a baax lu jëm ci luy dundal néegu yàlla bii luy tax néegub yàlla bii mission bi ko sunu borom subhaanahu dénk mu man koo doxal kon nag loola la ca aju ci alal mooy priorité parce que loolu day dugg ba tey ci tawhid bi ñu xam ne tawhid mooy jiital soxla si yàlla daf caa bokk jiital soxla si yàlla soosu nag néegub yàlla bii kon moo ëpp priorité ci lépp kon lam soxla ci fon ci ci ca nam yi fonctionner kon moo ci jiitu loolu ñu taw yi ci borom alal yi eh, eh, ñuy jufa indi seen ki nga xam ne jàkk gi toujours day am kees goo xam ne tey duñu yam rek ci eh, ndax jàkk yu bare bari yu organisé dañuy aaye sax ku fay taxaw di nii ñuy def ni buñ jullee ba noppi nit kuy taxaw daal naan di nit ñi di ñuy julli nit ñi defaguñ seen baax yaat saaliyaat taxaw nga taxaw naan di di taxaw di di yalwaan damay sàkku ndimbal de baal leen ma nangam nangam loolu lépp tey bu ñu organiser jàkka ni mu war a mel ñooñu tey bu ñu soxlaa ndimbal dañuy dem ci ki nga xam ne moo yore loolu wax ko seen soxla mu def ay enquête ci moom laaj ko ba xam ne kii kat ko soxla ndimbal la mu seet lañ ko war a dimbalee bu dee xaalis la ñu seet ko bu dee ceeb la bu dee sukkar loolu lépp dafa war a ndax jàkka ji wax naa ne war naa am magasin boo xam ne tey dañuy sensibiliser nit ñi koo xam ne ku am ceeb booy joxe te yàlla magasin baa ngi nii ku am pepp mooy joxe te yàlla tax magasin baa ngi nii ku am ay yére yoo soxlaatul war koo mën a jox jaamu yàlla yi mi ngi fii jàkk ji daa war a am barab boo xam ne bu ñuy dajal lépp lu aju ci sadaqaat ak tabaroat yoo xam ne du aju ci alal rek pepp ak dugub ak sëb ak lépp loo xam ne lu ñuy jëfandikoo da ko war a am waaye même ay yére léeg-léeg nga gis koo xam ne tey fa tabarakallahu am na loo xam ne ci ay yére solatu ko ah te xamul ku ko léegi nag bu ko fóotee ba mu set wecc mu yóbbu ko fa bu ko defee itam ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo dañoo soxla woolu lépp jàkk ji taxaw ci di ko di ko def loolu lépp dafa bokk ci rôle yi jàkk yi nga xam ne mooy tax jàkka mën a dox li mu war a war a dox lépp waaye nag lu ci nekk lu ne rek mu nekk loo xam ne euh, gestion bi dafay nekk loo xam ne ñi koy def ay compétence yamul laaj euh, dañ koy am buñ ko amuñu waajal leen lu jiitu ñu di ñëw ci wàllu wàllu formation kon loolu Cheikh Mourtada daanaka ci tënk mooy li nga xam ne mooy eh, liñ ñu doon tënk ci wàllug eh, li nga xam ne mooy eh, idaaratul masjid ak majaalaat yi nga xam ne tey moom la war a tanal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne andi nga ko tey jii ci mawdon bi di idaaratul masjid wa majaalaatuha yaakaar naa ñi ko doon topp. jëlee nañ ci lu bëree bëree bëri ah, boo ko seetloo tegaat na jàkka ci bërëbam maanaam wàccuwaay bi nga xam ne moom la am ci lislaam te mooy mu nekk mu assasa boo xam ne mën nga ne lépp mboole mu assasaat yi lislaam soxla rek moom dajale na ko lépp rek dajale na ko ci biir tàmbale ko ci woo nit ñi ci gëm yàlla xam yàlla ci anam gañ ko war a xamee la aju ci taw tawxid yépp jàkka daf koy lijjanti nga tudd ci ay misaal yu ama am solo ginnaaw ba nga xamee ne leeral nga ne barab yëpp yàllaa ko moom waaye bi suñ borom moomee barab yëpp itam dafa jël jàkka moom jagleel ko boppam wax ne wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada digle ñu taxawu jàkka imaar ko maanaam fexe ba jàkka di def Euh, rôle bi nga xamante ne ni wasifa bi nga xamante ne ni moom la war a def ci société bi te ni ma ko waxee léegi jàkka dafa euh, transversal daanaka bàyyiwul dara bu fekkente ne jàkka fex nañ ba tafaayil ko rek maanaam li mu war a def mi ngi koy def rek jafe-jafe yu bëree bëree bëree bëri ci société bi jàkk dana ko lijjanti moo xam lu ci ajo ci waay wàllu pas-pasu nit la moo xam lu ci aju ci seen ay jaamu yàlla ci anam yu wuute la moo xam lu ci aju ci seen seen suróog itam yëpp leeral nga ko joxe ci misaal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne ni euh, ñëw na madinatu munawwara lam njëkk a def rek mooy taxawal jàkka jàkka moom nga xam ne dafa euh, dafa laal dundug jaam bi ci wet yëpp yëpp muy loo xam ne kon mëneesu koo ñàkk nos mëneesu koo ñàkk euh, de utal ko administration utal ko session boo xam ne mooy tax loolu tax a jóg jàkka ci yu wuute wuute Eh, lu aju ci gëm yàlla lu aju ci jaamu yàlla lu aju ci jàngale ak jubbanti nit ñi aju ci wàllu social te lu yaatoo yaatu loo xam ne xam naa ne ci la ñuy gën a taxaw sax ci li nga xamante ni jàkka war na ko def yooyu yëpp tamit tam andi ci ay mbir yu ama am solo yu leer nañ tàmbalee ci ni mu waree yar nit ñi eh, ci gëm yàlla ak li gëm yàlla laaj ci comportement doomu doomu doomu aadama te nga wax ne loolu la ko njëkk a rek mooy nodd ci boppam ak li liqaam gis nga ni mu tëddee euh, baat yañ cay wax allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah booba rek jàkkaa ngay wax nit li mu war a gëm ak li nga xamante ne ni moom la moom la war a topp bu noppee ñëw di julli tamit julli nam demee lépp yaa ngi euh, jox sunu borom wàccuwaayam waaye nga joxe misaal tamit mu am solo ci cheikh na ahmadul xadim li nga xamante ni xamoon na ko rôle boobu nga xam ne jàkka moom la am ba tax fu mu mas a wàcc la muy njëkk yittewoo mooy taxawal jàkk boo taxawale taxawalee ba noppi nag di fa def loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan def ci jàkk te mooy di fa jàngale bo xam-xamul islaam bi nga xamante ne nii amul benn wàllu goo xamante ne nii bàyyi na ko nga junj lu am solo ne lu ëpp ci li nga xamante ne nii jël nañ ko ci Trasul Xadim ay njàngaleem yu ci bëri mi ngi ko defoon ci jàkka mag ñu baax ñi nga xam ne ñoom la jamono tolloon comme ne Cheikh Moxtar Bintaloo ak ñu mel ne moom yi nga xamante ne dajale nañu ko yëpp lu ci bëree bëri mi ngi jugee rek ci jàngale yi nga xam ne Seexul Xadiim bu masaane ñëw ci jàkka euh, bu jullee ba noppi xam gu mu xam li jàkka war a taxaw ak nos gu mu nosoon jàkka utal ko session bu baax yooyu yëpp daana ko fa fa amal kon boobu mooy bi ci jiituru mooy wàllu gëm yàlla gi ak xam moom rek lañ war a jaamu euh, ci suñu dund buy ñëwee ci wàllu ibaada gi tamitam wax ngeen jàkka dañ ko war a organiser ba nga xam ne jaamu yàlla mi tax ñu def ko danañ ko fa mën a def ci anam gëm muccee gëm gën mucce ci ayib te mooy jàkka julli moo ko tax a jug wala boog moo ëpp solo ci li ko tax a jug ñu war a fexe ba julli yooyu ñu di ko nos ba mu fay am kenn du tabax jàkka rek mu rafet rek ñu bàyyi ko noonu waaye buñ koy tabax tabax ki la ko tax a jug mooy ñu di fa ñu di fa julli julli juróom waaye ñu di taxawal naafile yi rawatina ci weeru ñu fexe ba nga xam ne dañ fay taxawal ramadan te lépp euh, nawaafilu ramadan te lépp di am ci anam ga nga xamante ne nii moom la gën a muccee ci ayib ndax loolu dafa am lu bari lu muy def ci wàllu ruux ci doomu ci doomu aadama yi nga wax ci tamit bokk na ci ni ñuy idaara wàllu wii ci biir jàkka niñ ko war a taxawee mooy jàkka war nañ koo tànnal imaam joo xamante ne nii melokaani imaam day daje ci moom ci xam-xam ba ci jub ga ci ragal yàlla gi ak mbooleem melokaan wax na rek day tax nit muy mu yàllu ñu teg ko ci kanamu ci kanamu nit ñi waaye duñ ca yam imaam boobu dafa bokk ci liggéeyu jàkka mu utal ko ay naib ay nuwaab yoo xam ne kenn ku ne xam na ne nit du man saa ne rek muy man saa rek muy mën a fekke ñooñu ñoo koy bu bu bu amee ngant ñooñu mën a taxaw taxawaayam naka noonu noddukat yi tamitam jàkk moo war a taxaw ci jàkk ji am ay noddukat te luñ seenub lim mar naa mën a bari ndax ku am ngànt sa moroom sa moroom ñëw nga wax lu am solo foofu itam ci ne li ñuy sàkku ci imaam ci ay melokaan ci ak xam ci ak jub ak ci ku am compétence noonu lañ ko bëggee ci ñi koy wuutu ndax nit warta wuutu koo xamante ne ni melut ne moom donte la xam ne imaam mën na ko dara daraja ci wet googu waaye war naa mën a am melokaan yooyu naka noonu noddukat yi war nañoo doon ñoo xam ne ñu deñ ak réer la ñuy doon ñu xam la ñuy doon nit ñu dal nit ñu ràññee yooyu yëpp tamit lu am solo la bokk na ci liy tax jaamu yàlla gi ci jàkka yi mu nekk loo xam ne day am ci anam gëm gën a mucc ayib ndax mbokk ñun ñëpp danañ gis ne léeg-léeg nga gis nga dugg ci jàkka di fa julli waaye sa julli ga du neex ci yow ndax ña nga fa fekk da nga gis ne liñ war a xam ci wàllu julli gi donc des na muy xam léeg-léeg ñay jiite la waaye léeg-léeg sax rawatina ci ñi nga xamante ne ni ñooy nodd loolu bokk na ci ñun lu ñu sàggane lool fii daanaka noddkat yeg yooyu ku jug rek mën naa nekk noddkat bi yooyu yëpp itam ay jafe-jafe la yu am ci ni ñu war a taxawoo jàkka nga àgg ci na yëmut sax ci imaam ak noddukat yeeg naayib yi waaye mboolem ñiy liggéey ci jàkka ji dañu war a doon ñoo xam ne lu mu néew néew dana am benn niveau boo xam ne am nañ ko ci wàllu xam diine waaye am nañ ko ci ay compétence masalan suñ jumaay Tuubaa ji rek nga xam ne lu nee fii ñëw ñi nga xam ne ñoo féete ci jàkka ji lu mu néew néew war nañoo nekk ñu nga xamante ne ni xam nañ buñ buñ géejuwut ci di xam-xamu diine itam war nañ cee xam lu bari waaye duñ ca yam war nañoo am yeneen compétence sa lu mel war nañoo dégg yeneen langue yi nga xam ne ñi fiy ñëw danañ mën a wax ak ñoom di leen mën a euh, tontu ci yenn laaj yi nga xamante ne nii moom lañ leen di moom la ñi fiy ñëw di soxla nga wax ne ngir loolu mën a taxaw nag dana baax lool kon ñu di leen former forme mbooleem ñiy liggéey ci jàkka ji équipe bi nga xam ne moo yore jàkka ji ñu former leen ci wàllu xam-xam leen ci wàllu jikko former leen ci ay compétences yi nga xamante ne nii dana tax ñu xam nan la ñuy gàttandoo ñi nga xamante ni ñooy gani suñu borom yi ñëw ci jàkk ji wala ñi nga xam dañoo ñëw rek ngir euh, visiter si jàkk ji ndax loolu am solo la bari waa na nit koo xam ne gëmul yàlla ñëw ci barabu lislaam barabu jàkk seet si ko rek waaye nañ ko fay accueillir ak lam fay gis loola xiir ko ci mu dugg ci mu dugg ci lislaam bu dee ci wàllu taalim ak irsaad tamit nga wax ci lu ama am solo ne bokk na ci ëpp solo ci li nga xam ne moom la jàkka wala liggéey nga wax ne jàkka yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo xam ne ñëpp fay jàng daara la woon joo xam ne itam niveau yëpp lay jàngal ki nekk ci classe primaire ki nekk ci moyen secondaire ak ki nekk université ñëpp la daan jàngal nga gisaat kon jàkka soxla si euh, soxla si nga xamante ni euh, am na ko nga xam ne lépp lañ fa daan jàngale xam li ñuy tuddee xam-xamu diine xam-xamu am njariñ ci àdduna yëpp tamitam dañ ko fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko fa taan da ko fa taan noonu itam Seexul Xadim junj nañ ko léegi bi mu ñëwee noonu la def ci kaw loolu sax lañ gis ñi ko fi wutu ginnaaw bi ñu jumaam ji àggee Cheikh Mamadul Fadil mu taxawal fi jàngkat bu mag bi ñuy tuddee daarul maarifil islamiya nga xam ne ci njëlbeen dañ ko tegoon ci loxol Baye Serigne bu sa imaam ak Baye Serigne Jatara ginnaaw bi alaaji Mbàkke euh, Cheikh alaaji Mbàkke Jaxate mi ko yor ñu ko ñaanal suñu borom euh, dolli ko dëgëral naka noonu day am solo lool kon ci wàllu njàngale moomu ñu fexe ba dars yi ñu fiy jaxe mawdon yi ñu fiy joxe ñu koy jëlee ci dunduk nit ñi fi nit ñi toll yi nekk ci ay pas-pas boo ko defee loola day daal di am solo xam naa dañuy gën a tënk ba tey ñëw ci wàllu euh, idaaratul masjid fil majaal ijtimaa yi foofu nag moom nga andi fi yu ama am solo yoo xam ne xam naa ne waxtaan wi <laughs> wa jàkk yi war nañ ko diglu ba xool wàll yi nga ci indi yëpp nan lañ koy taxawalee ci jàkk yi ndax lu ama am solo la luy indi euh, saafara ci ay jafe-jafe yu bari la mel na tënk nga ko ci ñetti mbir ba ca njëkk rek mooy euh, soxlay nit ñi société bi day am ñoo xam ne dañuy aajowoo dañuy aajowoo laaj ndimbal te seen moroomi jullit yi ñoo leen wara a jun dundal loolu jàkka war na koo taxawe bokk na ca nam koy taxawee la ci gën a fés mooy ñaax nit ñi ci ñuy def seen alal ci yoonu yàlla di dimbale ñi nga xamante ni dañoo aajowoo waaye di taxawal ay projet yoo xamante ni nii bu taxawee njariñ lu yaatu la loo xam ne nit ñëpp koy tax a jóg waaye nag séddale yi nga xamante ni ñi nga xamante ni dañoo aajowoo dañ koy soxla ñi nga xamante ni dañoo dañoo toll diggante bu jàmp buñ ñëwee mën a gaaral seeni jafe-jafe boo ko defee jàkk ji jël ko jàngat ko man ci indi ay ay ay ay ay saafara bokk na ci di defar ay kees yoo xam ne su ndooxu tabaruxaat lañ koy wax ku am sa dara rek dugal fa loolu bu daje tamit lu mën a lijjanti yu bari la ci ñi nga xam ne dañoo aajowoo ak ñi nga xamante al muallafatu qulubuhum nga wax ko muy lu am solo léegi la gën a bari loo xam ne ñoo xam ne day tax ñu xeemam lislaam waaye di def ay jataay yoo xam ne dañ ci tawaya nit ñi di leen woo ci ñuy def ñuy def ci yoon yàlla di def ci loo xam ne day dugg ci li ñuy wax attakaful ijtimaa yi boobu na nga wax ci ne ay bunt yu bari la am na ci loo xam ne azaka koy def am na ci loo xam ne saraxa la am na ci loo xamante ni ah, amal xayri la waaye am na ci loo xamante ni ay ay hadiya la kon loolu moo jëm ci lii andi saafara ci jafe-jafe nit ñi ci seen bopp ci seen wàllu dund waaye nga andi tamit ci wàllu majaal ijtimaa yi lu ama am solo te mooy kenn ku ne xam ne ni nit ñi dañuy dund en société ay jafe-jafe ay problème di am ci seen biir nisaaxaat yooyu ak xusumaat yooyu noonu nag nan lañ koy faddee nan lañ ciy indi ay xulool yooyu tamit am na ci am solo nga wax na jàkka war naa àgg sax ci di mën a ci ñiy julli si ci jàkka ji waa koñ bi wala waa dëkk bi jafe-jafe yi am ci seen biir muy muy def mu baadara balaa ñu ko fi indi sax moom mu jug andi ci ay saafara yu ama am yu ama am solo naka noonu itam bokk na ci li jàkk di def mooy euh, euh, fas gi ñuy fas ay sëy ci biir jàkka ak anam gam war a amee muy loo xam ne it lu ci bëri fii des na ndax dañuy fas rek daal dem waaye nga wax ne doon na baax ñi nga xamante ne ni ñoo ko seq lañ leen war a lañ leen war a xamal ci seeni warugar kenn ku ci ne ak kenn ku ne lan mooy ay àqam ca ka ca des yooyu yëpp tamit ñu taxawee ko waaye nga wax lu am solo ci loo xam ne jàkka war na ko mën a am te mooy taxaw taxawaay bu am solo ci aajo yi nit ñi ci faju ndax faju day lu jafe rawatina ci suñu dëkk yi daanaka mbooloo mi bokk ko rek mooy tax mu mën a mu mën a jaar yoon bu ko nit ñi bokkee rek mook jàng ñoo xaw a bu ci ñëpp participer ñëpp danañ mën a jàng faju tamit noonu la mel bu ci ñëpp participer ñëpp danañ mën a faju te jafe-jafe du am waaye bu loolu amul jafe-jafe day te loolu nga ne jàkka war na cee mën a def lu am solo nga joxe ci ay misaal yu leer naññ ci réew mee di Égypte nga xam ne ci jàkka yoo xam ne ay nit yàlla ñoo ko defal mu suñu jàkka yi ñoom ñi ngi taxawu taxawaay bu am solo bu organisé wu ci fexe ba di e, joxe service boobu mooy mbirum faju te liñ koy defee rek mooy ñi nga xamante ne nii ñoo aju ca jàkka ja wala ñoo aju nit ku baax boobu nga xam ne moo yilif jàkka ja ay mbooloo lañ yoo xam ne kenn ku ne am na lu man bu kenn ku ne indee man-manam parce que nan rek médecin ñaata infirmier ñaata sage am ñoo nekk ay murit kenn xamul nuñ toll bu jàkk ji jugoon ci wàllu woowu sensibiliser leen danañ man di faj fii ñu bëri te yaakaar na sa mbokk bu soobee yi ne fi bëri na ñoo xam ne laaj nañu xoolal leen seen bët yi ak seen tànk yi te loolu bu ko defoon dana am solo lool mel na nag am na lu ñu fi tàmbale benn poste de santé bu fi ne yooyu yëpp warees na koo gën a defar ba mu gën a jaar yoon ci gàttal daal euh, waxtaan wi lu ama am solo la waneen na jàkka ni mu amee solo gis na lislaam sax ni mu koy defee ci digg barab bi la koy def maanaam ñëpp fi war di ñëw bu fi ñëpp ñëwee nag dañ fay war a jariñu ci seen diggante ak seen borom waaye doomu aadama ni ko yàlla bindee day dund ci société soxla ay soxla soxla yu yëpp jàkk ji war na cee taxaw njàngale itam ñu jàngal nit ñi li leen war a jàngal yee leen ci àdduna ba nga xamante ne ni dund gi lépp day daal di day daal di ñoom kon nga gis na lislaam organiser na dund organiser gu xarañ xarañ jaarale ko ci jàkka nga xam ne jàkka mennum rek mën naa liggéey loo xamante ne ni bu dee ci yeneen organisation yi wala ci yeneen mbir yi nga xam ne du lislaam daanaka lenn lu ne dañ ko utal ab département te moom jàkka mu boole département yooyu yëpp mën nga fa fekk ministère de la santé enseignement supérieur éducation nationale yëpp mën nga faa mën nga ko fekk ci jàkka kon jàkka lu am am solo la nga xam ne ñu ngi lay bu baax ci waxtaan am na solo euh, lii lay jariñ maanaam jeqi loo xamante ne ni bu nit ñi digloo te dox ci ay jéego day andi ak soppite bu ama am solo ci askan wi ñu lay jaajëfal bu baax a baax di ñaan suñu borom yokk xam-xam wi dolli wér gi euh, dolli kattan gi ci barke Serigne Touba kon ñu ngi euh, wàcce foofu kàddu yi di la jaajëfal di jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñu doon topp euh, ci ñi fi teew ci barab bi ak ñi nga xam ne ñu ngi ko doon topp ci média yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ok jërëjëf Cheikh Mouhamadou Moutada ci modération bu am solo boobu noonu la ngi sante bu baax a baax sëñ docteur Khadim Sylla ci waxtaan wi xam ne moo doon amal tey bi nekkoon la gestion de la mosquée et ses domaines mu indi ci am solo loo xam ne képp ko dégg rek day gis ne war nga ko jariñoo di sant bu baax tamit yi nga xam ne ñoom lañ dara jàllam mu nekk Kepaar Serigne Sall nekk benn centre de formation couture bu nekk fii ci Darou Khoudoss 30 Serigne Cheikh Bombalé bi di leen fàttali ba tey ne waxtaan yi mën nga ko top ci réseaux yi nga xam ne limoon nañ ko sànq comme xam naa dañuy taxawlu foofu rek suba ak jàmm gën njëkk tey waxtu yu jox suñu mot laa mu def ñaan ba suba ak jàmm suñu zo